foofu waaw ci man de kon nag gaawal te ñëw kilifa Abdoul Aziz Haydara bu ci loñ ñu de ñoo ko invité woon yegsi na mi ngi ci gannaaw mbooloo mi mu ne ñu yëgal leen ko mook ay rakam ñu ne kontaan nañ ci loolu la ñu doon yëgle ma yeggal su nit defee bàkkaar bàkkaar ba dañ koy def point bu ñuul ci xolam su tuubee ñu far ko su tuubul nag day dolleeku ba xol ba mujj xuur astaghfirullah bi ci tariqa bi nag day fóot xol bi moom set wecc moo tax tariqa bi boo ci bokkee bis bu ne nga judduwaat te man lam yuulat marratayni lam yalija malakuta sama ku judduwul ñaari yoon doo dugg ci goxu yàlla yi ku judduwul ñaari yoon doo dugg ci goxu yàlla yi moo tax Cheikh Ahmed Tidiane ku mu mës a may weer def naa la juraat naa la loolu tax ñu naan ko abul abbas xam nga amul doom ju tudd abbas teñ naan ko baayu abbas abbasu ci lugal arab yi mooy firi borom kanam gu gu tàng gu ñëkk ku tiit cheikh ni ku tiit ba defee ni sa affaire ruutul baax ñëwal ma juraat la moo tax ñu naan ko abul abbas loolu indi abul abbas aha dégg nga de mais bi ci yéeme mu ne maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa war naa leeral cheikh juddu gannaaw yonent bi junni at ak téeméer ak juróom fukk manaan mu ne maamam yonent bi yonent bi dafa mureeku cheikh gis ko bu mu la jaaxal guddi rañaan ga sayiduna muhammad ca baytil maqdis dekkal nañu yonent yépp ñu roy ci gannaawam muy seen ilimaan bul way te ñooñu faatu woon nañu de yonent yi jóge ci seen bàmmeel julli ca baytil maqdis loola ñu mën ko ci barke yonent bi yonent bi mureeku cheikh gis ko bankal benn ngoog di bi ci des mooy xamoo ni nit ku faatu su nekkee ci biir bàmmeelam ñu di ko laaj naan ko kuy sa borom mu ne yàlla luy sa téere mu ne alquran ndéem gëmoon na ko luy sa diine mu ne lislaam yonent bi nee na dañuy indi jëmmam ja ni ko maa qawluka bi hada rajul loo xam ci waa ji toog ñuy suul nit ca so yoof ñu naan ko loo xam ci waa ji di suul nit ca farefeñe naan ko loo xam ci waa ji di suul nit ca kawlax naan ko loo xam ci waa ji di suul nit fii naan ko loo xam ci waa ji di suul nit ca Tiwaawan naan ko loo xam ci waa ji ci benn jëmm ci benn seconde kooka mureeku cheikh gis ko tariqa bi tegawul ci ay abatil tegawul ci ay xuraafaat man mii di ab simple taalibe taalibe ma ne ba ci rencontre internationale yi ku contre tariqa bi ñeme naa la face à face ak komu ak foo jóge ak diplôme boo am wallahi wal kitaabi ak komu tariqa bi teguwul ci caaxaan Seyd El Hadj Malick du dugg ci caaxaan Cheikh El Hadj Oumar du dugg ci caaxaan kii contre na xol bay baax ñaanal ko yàlla rek bu ko xas xam nga lu tax dafa waaju bañoon lool cheikh di ko sikkal ba taalibe yi bëgg ci wax dara cheikh ni leen bàyyi leen ko sama maam daf koo soxlawul yàlla soxlawu ko bu yàlla soxla woon xolam wala sama maam soxla xolam kon ñu contacté xolam mu nangu ma ayuha almuaridu anna fa inna iraadaka minna law aradnaaka la jaalna kulla ma fiika yuridna mu jox ko nag salaatul fatixi salaatul fatixi moo di benn salaatu boo xam ne baat bu ci ne mi ngi xare ci benn laay alquran salaatul fatixi mi ngi xare ci fukki laay alquran ak ñeent lu ci jëkk ñi ngi ko xare ci daawaahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru daawaahum an alhamdulillahi rabbil alamin lu ci topp salli ala ñi ngi ko xare ci inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu wa taslima lu ci topp sayidina ñi ngi ko xare ci wa sayidan wa xasuuran wa nabiyan min alsaalixin lu ci topp muhammadin alfatixi muhammadin alfatixi ñi ngi ko xare ci muhammadun rasulullahi walladina maahu ashidaau على الكفار رحماء بينهم تريهم أو تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لتطب والخاتم لما سبق ينكو خارج ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبيين لتطب ناصر الحق بالحق ناصر ينكو خارج إن تنصر الله ينصركم حق بالحق ينكو خارج وبالحق أنزلناه وبالحق نزل والهادي إلى صراطك المستقيم ñi ngi ko xare ci wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa ala alihi ñi ngi ko xare ci innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahla albayt xaqa qadrihi ñi ngi ko xare ci ma qadaruna xaqa qadrihi wa miqdaarihi ñi ngi ko xare ci wa kullu cheyin indahu miqdaar al azim ñu xare ko ci wa innaka la ala xuluqin azim
ورداه العذب لا تجر بنا ابدا ان الممايل تهمي من مزايا العذب لا تجر بنا ابدا ان المنايل ترجف مئة خلفا ورداه العذبه لا تفجر بنا ابدا ان المعنى الى جهمي وعصايا لا تفجر بنا ابدا ان المعنى الى الله خلفا الحمد لله هذا شيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولاه إن المنايل من مزاياه وإمامه يرجمي من مزاياه حلفا ويربى بلا خلوه إن أصحابه على من عادت تغام فيا لله مدحا وإن المنايل حلفا والشخص ينبغي منايل ترجف مي بالمزايا حلفا ويسقي المريدين من كأس الوصول إلى نحو المراد إليه قد كان مأوى وإن المنايل من مزايا وإما ترجف مي ما تجدف ليل فعلا ما فيه بحر له مدد مدد صاحب الجود حقا من سرايا مدد مدد صاحب الجود حقا سن الله خلف ومدد مدد ومدد مدد مدد مدد مدد صاحب الجو حقا من صغايا
مدد مدد مدد دندن صاحب الجود الهلاوي او اشباه الوبل في اراقيب مدرا اصبح الناس غرق فيه جدوى او اشباه الوبل في اراقيب مدرا لاصبح الناس قال فاي مدد مدد واي مدد مدد مدد مدد مدد صاحب الجود حقا من الضحايا فاي مدد مدد مدد مدد مدد دندن صاحب الجود حقا فلدخلن فيه جدواه فيه جدواه مام عبد العزيز فيه كندك جم فيه جدواه واو ماما عبد العزيز كندك جم فيه جدواه يعني دحيا فيه جدوى فيه جدوى وما عبد قرصوص كندك جم فيه جدوى فيه جدوى وفيه جدوى وما عبد قرصوص كندك جم شمشر الحيط قوية فيه جدوى فيه جدوى وعمسهم بيتي دوت في كفي جدوى في جدوى وفي جدوى ومنصور بيتي دوت في كفي كان لهيت كونا فيه رجع دوت في كفي جدوى ونخلو أبدو لك تخفيه جدوى borom daara jaa dootu fi jag fii jaduwaaw waaw xilaafa Maodo ab doole ko jox. borom daara jaa leen ni borom daara jaa dootu fi jag fii jaduwaaw waaw xilaafa Maodo ab doole ko jox fii jaduwaaw. borom daara jaa dootu fi jag fii jaduwaaw waaw xilaafa. Maodo ab doole ko jox fii jadu daga mel kon Mansuuru moo Mansuuru kat wulli tuubu wulli tuubu firral xilaafati awa mawride mawrade borom daraje dootu fi jot fii jadwa man xilaafa Maodo ab doole ko jox fii jadwa woo borom daraje بقلبي جوهر مخال خلاف أبدو جن الغيم فيه جدوى فيه جدوى ووسن ميسي منصورة تخكن دنيا فيه جدوى في جدوى وفي جدوى ووسن ميسي منصورة تخكن دنيا فيه جدوى جلله فيه جدوى فيه جدوى وسنبي سي منصورة تحكم دنيا فيه جدوى فيه جدوى وفيه جدوى وسنبي سي منصورة تحكم دنيا فيه جدوى دغنا الكل تودا رجالاتي صبرا قلبكم سلي ما يا موجب الخوف وحدود وجدي لول سخدي منصور باخ باخ بويس باخ باخ مقاسي ومساد والبادين لك جاهانا تخكم يبفي جدوى زي مجري منصورا تخكم يبفي جدوى انا تحكم نفسي شرب هرم خان نفسي برزاج كنك يبكي
dañu def ni ñàkk jeexaana tax kenn du yëpp fii jaduwaa sëñ bay say man soora tax kenn du ko yëpp fii jaduwaaw
ñàkk jeexaana tax kenn du ñu yëpp fii jaduwaaw waaw sëñ bay góor saay kenn du ko yëpp fii jadu wooy ñàkk jeexaana tax kenn du ko yëpp fii jaduwaaw sëñ bay say man soora tax kenn du ko yëpp fii jaduwaaw
ñàkk jeexaana tax kenn du ñu yëpp fii jaduwaaw day day si mansuura tax kenn du ñu yëpp fii jaduwaaw waawaw akrim bi sawaad ku koy diinat xamuloo ay amal ulama min fiimi maxnaawo way akrim bi teeral leex tiigan ku koy kontar boo xamuloo ay laamal ulama min teeral loxol ci saahyam akrim bihi sama waaj ku koy diinat xamuloo ay amal ulama min fiimi maxnaa tiiba way akrim bi teeral leex tiigan ku koy kontar xamuloo ay laamal ulama min tiibi maxna waxay takkaw akrim bihi way sama góor gi ku koy diinat xamuloo ay amal ulama min fiimi maxnaa tiiba way akrim bi jaaral leen Mansoor ku koy kontar xamuloo ay lamal ulama min tibi seen loxoy jakaw akrim bii waaye seen waajal ku koy kontar xamuloo ay lamal ulama min tibi baxnaa baaway akrim bi jaaral leen Mansour ku koy diigar xamuloo ay lamal ulama min tibi sama waa ji akrim bi bar Mansoor ku koy diingat xamuloo ay lamal ulama min tibi baxnaa baaway akrim bi jaaral leen diigar ku koy diigar xamuloo ay lamal ulama لازم كان العيد كان العالم بيبا لازم قال تجدي تعلي بيشيخ آدو دايفاجو وفي دنيا وأخرى
لازم سمر لازم قال تعلي بيشيخ آدو دايفاجو في دنيا وأخرى أكرم به سارة كوكاي Dawgo.
لو خلوا أيلام العلماء من تيب مغنى مالك فخر
Sidi Aboubacar ne nga delloo kaala gi ngeen may ñu maa ngi tëj wax ji maa ngi tëj wax ji baal leen ñu rek may ñu baal leen ñu rek may ñu
Ndiogu Fama ah nan bàyyi Habib Sarr continue yal na yàlla guddal sa fan tariixa bi sagal nga ko kenn yabunu ngir yow ñëpp wet nun la ngir sa dignité ak sa fidélité ak sa maam alxaaji Maalik sëñ Abdou Aziz si moo ma nettali ndee dafa tëju moom Seydi Mansour ak moom ak ñu sant si ñëpp am lu ñu wax ci néeba ñu la sëriñ may looy wax nga ne leen man day lépp luy sagal Cheikh Sidi Alhaji Malick ci laa nekk waaye lépp lu sagal lu Cheikh Sidi Alhaji Malick man Babacar si bokk ba ca te kat kooka li ñuy wax ni conseil des ministres la woon conseil des ministres de la famille si la kooku loolu nga tontu kooku mooy Sidi moom
tabarakallahu xaaji Mansour xaaji Mansour jërëjëf
ak dignité ak am fayda dëkk nañu sept ans ci sunu kër muy jàng ci Cheikh Ndiaye maa béy moo ko Maodo ak yéen ñii ñëpp waaye nii rek la ma sa mel kenn yabu ko man rek maa ko ma sa yëpp ndax maa ko ma sa poñi ndax dama portale ak moom ba noppi mu xotti portale ba kii dafa am fu na torop ba mu xottee portale ba nag ma énervé mu ne ma ba su ma demee màkk dinaa la may dollar yàlla nattu ko nag nu daje si buntu Medina mu junni si rawdu bi bay génn ma poñe ko nu dem si table ji mu jëndal ma dollar jox ma weccit wa simaani fu la rek nga am
tabaarakallahu jërë ngeen jëf wa qulu linnaasi xusnan wa qulu linnaasi xusnan santaaram jërëjëf xaaji Mansour jërëjëf ma ñëw wax ji rafet na dëgg la it te alquran nee na booy àddu ci sa gémmiñ jëme ci nit nay lu rafet kon wax ngeen dëgg wax ngeen lu rafet Seydi Aboubacar xafidahullah yal na ko yàlla wattu man duma wax dara ci kontam benn rek laa ciy nettali mëtagul ñaari weer bi ñu àndeek moom jóge Italie daaw góor mi seede la ci Abdou Aziz seede la ci ba ñu yeggee Italie murit tiijaan xaadir laayeen ñaseen ñépp dañoo boole yoo wër ko amul soxla ci dërëm buñ ko jox la mu leen di wax mooy yàlla nee na yonent bi nee na kero biñ gàmmoo ci Bergamo gàmmu ga fees lool neex lool ñu jóge ci gàmmu ga ñëw ci hôtel bi Sidi Aboubacar mel na lu nekk ci xaal ma jox ko loxo mu téye sama ñaari loxo naan gàmmu gi neex na de gàmmu gi neex na de gàmmu gi neex na de ba ma gis ne dafa soppeeku ma ne ko ñun ñii daal si lépp loo xam ne sagu diine nga ci sagu tariqa bi nekk ci sagu sa kër Seydi El Hadj Malick nekk ci sa sakk yow spécial tay la nañu ci sunu bakkan ñun dañuy foowe suñ bopp ba tëb di ko wax loolu liñ koy bëgg bëgg bëgg nooy responsable suñu jëf wala taziru waziratun wizra oxra bokk noog moom bàmmeel bu yàllay wax ak ñun du ñëw luñ gis la rek di ko wax wallahi wal kitaabi fonk nañ kilifa ñépp réyal nañ kilifa ñépp waaye ñun ku ñu bëgg a utiliser booy boo bëggal ñu kii waaw booy boo fonkal ñu kii dañ ko wax rek lillahi taala wax ko rek ngir seede nag waxuñu ko pour beneen intérêt maa ngi tëj wax ji xam ngeen lu ma koy tëjee tariqa tijaaniya bare na ngëneel waaye ngëneel bi ci gën a rëy mooy boo yeewoo jàpp julli wazifa ji am nga tuyaabay siyaare yonent bi ak saxaaba yi wa xaadirun nabiyuna walxulafa maa saxbihi fi kulli yowmin qad wafa Cheikh Alxaaj Malik nee na malaanum wazifa buñ tàllal bu mu yonent Yàlla Muhammad fekke na ko benn waay wax ko ci tariqa bi beneen waay jóg ni ko du dëgg Seydi Ali Harazim ni ko yaa gàttuloo jàng ni ko ndax xam nga seconde bu ne malaakal mawti ñaata bakkan lay rey waa ji ne xaw ma ko Seydi Ali Harazim ni ko seconde bu ne malaakal mawti dana rey téeméeri junni yi bakkan buy rey bakkan bii du tee mu mën a rey bakkan bale buy rey bakkan bale du tee mu mën bakkan bale malakal mawti man ko yonent bi mënul teewe malaan wasifa yëpp mu ni ko akay mu ni ko bàyyil cheikh ak li mu yor maama ma ko ko jox cheikh di lim ba yàgg mu ni inna al fuyuda allati tafiidu min zaati sayidi al wujud tatalaqaha zawatu al anbiya wa kullu ma faada wa baraza tatalaqaahu zawaatu al anbiya تتلقاها ذاتي ومني تتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إلي مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة cheikh nee na xadratul ilahiya leer ya cay bàyyee ko tàngoor wa mu yor benn jëmm attanu ko budul jëmm sayiduna muhammad nee na bu recevoiree leer ya ba seddal ko daf koy évacuer yonent ya lu lu déparé waat ci xadara yonent ya cheikh nee na ci man lañ koy wersi maa koy séddale ku ma sédd nga sédd ku ma séddul nga ne këm soo ko xamee maa la sédd soo ko xamul maa la sédd waaw loolu nu ngeen koy déggi ñaataay sangu ci ndox ci Dakar te mësuñoo dem Lac de Guiers man bëggoon naa su may wax ngeen di ma déglu ñaataay sangu ci ndox ci Dakar te mësuñoo dem Lac de Guiers xam nga Lac de Guiers a tax ñu sangu waaye xamuñu ne Lac de Guiers a tax cheikh ay tëbb ku mu te yëgoon ni sax moo lay tëbb kenn du cheikh na Ahmed Tijani ba muy lim yooyu nag Ali Harazim ni ko akunta fi saxwu am fi sukkur yaa ngeeg sa xel wala da ngaa màndi mu ni ko màndiwuma maa ngeeg sama xel mu ni ko waa bis bu ñu la waxalee lu amul nag waxal la loo xam ne dañ ne yaa ko wax te waxoo ko boobaa naka fexe Sidi Ahmed Tidiane ni ida samiatum anni cheyan fa zinuhu bi misani sharai wa ma waafaqa fa xuduuhu wa ma xaalafa fatrukuuhu waxtu wu ngeen déggee ñu ne maa wax nangam man cheikh ngeen bëgg a xam dëgg la wala du dëgg def leen vérification ci alquran ak sunna su dëppoo nekk benn maa ko wax bu dëppoowul dañ ma ko sosal kon ku bokk ci tariqa bi fokk nga jàng vérification ci alquran ak sunna ko xama ko man kon madrasatu tijaaniyati école tijaani tijaan école njàng la école yitte la école yiw la école fayda la école wayaf la école bëggante la idan tariqatuna tijaaniyati tariqatu imanin wa aqidatin wa ilmin wa amalin wa adabin wa mahabbatin wa daawatin wa riyaadatin wa suluukin tatbiqiyin ila rihaabil asraari wal anwaar tariqa gëm yàlla la tariqa pas-pas la tariqa bëggante la tariqa yaru la tariqa set wecc la bañ a tilim doo taq doo ñaq tariqa tàggatu ci wàllu yàlla la tariqa wax dëgg la tariqa bi kuy fen bokkuloo ci parce que fen mooy yées ci mooy yàlla yi benn waaye ñëw na ci sayiduna muhammad ni ko dama bëgg a tuub waaye dafa am lu dox sama digganteeg tuub mu ne ko lan la mu ne ko dégg naa sa diine ji lay tere njaaloo te man ku léttu lay bañ a gis dégg naa sa diine ji lay tere naan sàngara te man biteel lay bañ a gis dégg naa sa diine ji lay tere sàcc te man lu ma gis yóbbu ko soo bëggee nag ma bàyyi ci benn képp tey def ñaar yi danaa tuub yonent bi ni ko utrukil kadiba terew ko sàngara terew ko njaaloo terew ko sàcc daf ko di bàyyil fenn waa ji génn ne kon bàyyi naa fen dox ci mbedd mi dajeeg benn jigéen ndaw si ni ko lañ ma doon sant sama gàntu ko d'accord naa kaay nu def ko mu ne ko mënuma koo def parce que su ma ko defee yonent bi laaj ma ni ma ndax dangaa njaaloo dama naan ko waaw te kon mu dóor ma te su ma ne ko njaaloo ma danaa fen te fasante naa mu wëllëre dootuma fen mënumaa njaaloo demal yem ci dam saanu sàngara buy fuur mu dem ba bëgg a naan ni su ma naanee màndi yonent bi laaj ma ni ma ndax dangaa naan ma ne waaw fen te su ma nee déedéet su ma nee waaw mu dóor ma te su ma nee déedéet fenn kon mënumaa naan bàyyi yem ci alal wéet ak moom dem ba ni ko cas ni waaw buñ ma jàppee nag ni ma ndax da nga doon sàcc bu ma nee waaw waaw ñu dagg sama loxo te su ma nee déedéet fenn kon bàyyi fen tax na ko bàyyi njaaloo bàyyi fen tax na ko bàyyi sàcc bàyyi fen tax na ko bàyyi naan sàngara cheikh alxaaji malin fa sidqu fa huwa zinatu lmuridi aazana allahu min almaridi dëggu mooy taaru taalibe mu ne yàlla na nu yàlla musal ci fetteelu baatu sidqu ak siddiqiya ak sadaq ñoo bokk fu ñu leen xare te ci laa koy tëjee sidqu siddiq sadaq sidqu mooy firi dëggu siddiq martaba la sadaq mooy firi can ndeke kon doom ju juddoowul ci can du mën a yegg ci martaba siddiqiya ci doom ju juddoowul ci can sadaq du yegg ci martaba siddiqiya parce que canuñu yaayam doom ju juddoowul ci sadaq du mën a am sidqu bi firi dëggu ndax sosuwul ci dëggu moo tax Cheikh Ahmed Tidiane ni doomu njaaloo buñ ko def imam kon dëggu mooy taaru taalibe kon maa ngi tëj wax ji xam ngeen fu ma koy tëjee bi cheikh limee may yii te mu bare ali harazim daf ko ne xanaa kon yow cheikh yaag sa gaañi dépassé ngeen saxaaba yi sidna cheikh mer ba mer ma jeexee mu ni ko maa ngi mel ne gunóor ci suuf di raam maag sama taalibe yi saaba yi mel ne ay picc di naaw ci asamaan si mathalu amalina ma amali asxaabi rasulillahi ka mathali namlati maa surati alqatat sama jëf man cheikh ak sama may ak sama mayu taalibe yi li muy rëy rëy rëy rëy